mais Françoise Hélène kay lu tax nga may tooñ lu tax nga may tooñ d'habitude les catholiques elles sont tellement gentilles j'ai une amie qui fait partie de mes meilleures amies j'en ai beaucoup elle est en Allemagne Marie Seck mais elle est tellement gentille du saaga Marie Seck catholique buy saaga maa ngi koy doog gis ci Françoise Hélène Gueye bàyyi saaga yi amul benn njëriñ lépp lu baaxoon ci yow yàq nga ko ci saaga c'est pas parce que nit ñi dañ lay saaga ngay tontu saaga non seulement da lay ridiculiser mais da ngay da ngay dévaloriser la femme sénégalaise. ñun xam nañ ko da nga am ay groupe xorom xam ngeen ni sooy xeex da nga am say groupe ñu lay saagal mais loolu baaxul. ñaata yoon la ñu def plateau ñaata yoon nga ma invité sa plateau. man nangul la ko n'importe quelle heure mais c'est parce que je parle avec d'autres femmes e j'ai le droit de parler avec d'autres femmes que nga may critiquer man di ma ne sax dama waroon demander autorisation avant d'aller parler à qui mais yow yaay kan ba ma lay demander autorisation moi j'ai tout le temps été libre moi kan lay demander autorisation pour parler avec qui que ce non seulement tu attaques mon live wax fa wax yu ñagas indigne d'une femme de classe de valeur ma ne pat di la observer nag parce que dama la observer depuis lors dama lay observer dama ne pat rek parce qu'une femme intellectuelle ah il faut savoir lire entre les lignes la femme intellectuelle doit savoir lire entre les lignes ouf ñëpp bàyyi yëfu seytaaneeg ràmbaaj waxu waxu waxu kesew kesewu borne fontaine parler de développement parler de la condition des femmes c'est ça qu'on attend de toutes les femmes intellectuelles qui se disent intellectuelles poste bi nga posté le lendemain maa ngi lay observé à distance lan lay tekki li ngay créé nii yàgg naa si man je suis pas en rivalité moi Françoise Hélène Gueye je suis allée jusqu'au cas Alimou Ndiaye mu toog ma toog man ne ko lu tax doo jox Françoise Hélène Gueye sa carte d'électeur mu ne ma awma si benn intérêt di ko bloqué ba mu la koy wax gëmaloo ko dafa defaroon naa la benn laay spécial pour ñu jox la sa carte électeur bi ngay xeex ne da nga bloqué amuloo carte électeur mais j'ai des assurances du ministre Alimou Ndiaye et tu as reçu ta carte électeur tu l'as reçu ni ma ko ali Alimou Ndiaye waxee noonu laa la ko ñëw jottalee gëmuloo ko jot nga sa carte électeur ba ñëw Sénégal voté ñun iñaanuñu man damay puus jigéen mu takk man de la major damay jàppale jigéen mu takk nekkuma en rivalité avec qui que ce soit seen mag la seen seen mag laa yéen ñëpp dam leen mag duma seeni moroom seen mag laa ban ah, ban comportement laa mën a am lu dul di leen di muñal di leen di supporter soo leen duggee si ay affaire kesew kesew kesew kesew dama koy muñ di ñaan yàlla soppi leen ba ngeen fàttaliku que ki ngeen amal affaire moo leen mag moo leen mën laay maa leen mën duma seen morom maa leen mën dangeen koy nangu ngay nangu ko maa leen mën ngay ñàkk ko nangu maa leen mën waaw ngeen nangu ko maa mën ngeen ñàkk ko nangu maa leen mën duma seen morom te xam ngeen duma seen morom kon na rafet na rafet c'est pas parce que maa ngi wax ak beneen femme sénégalaise qui est une femme sénégalaise qui s'appelle Fatoumata Danso que j'ai appris à connaître comme tout le monde dans les réseaux sociaux je la connais pas Fatoumata Danso jot na ñoo xamante on a échangé c'est une femme sénégalaise qui se bat man je respecte toutes les femmes aw ma sax a jax seen je respecte toutes les femmes ku bon sax din sama objectif mooy fexe ba nit ki baax ku sama objectif mooy fexe ba nit ki baax Mandela Madior man du Mandela Madior man duma baale pour ñu bañ maa saaga stop là stop comment ça moom ba dina di tukki doo nekk Ndella Madior mais bien sûr Ndella Madior daneen raw kon xamu leen que Ndella Madior daneen raw xamu leen que Ndella Madior daneen raw bi may joxe sama caution 20 millions en 2012 di jiite sama liste législative foo la newoon foo la newoon xam ngeen du seen morom man ku ma joxul cër ma joxal sama bopp cër nee naa leen dans six ans j'aurai soixante ans erreur boo leen ti def dinaa ko supporter du tee nag ma ñàkk fayda su ma leen waxee waree wax dëgg dem leen koy wax face à face yaa ngi Los Angeles ma nekk Dakar fa nga nekk mun naa la fa fekk dafi fa leneen bu may teg sama tànk Los Angeles teguloo sa tànk Los Angeles di ngeen wax ci tourisme laa fi dafi woon tourisme découvrir l'océan Pacifique moo ma fa yóbbu te su ma fu buggee dellu dama fay dellu sans problème man damay voyager pour tourisme nu may demee Île du Saloum noonu laay demee Canada di ko demee Chine di ko demee Thaïlande j'ai de sens interdit dans le monde liggéey naa ko kenn du ma ko may billet banque lay dem daf ñuy génne ko samay sama sama compte jënd sama billet dem àndal nag ak samay doom jegewuñu nay jegewuñu duñu compter ñun duñu compter suñu billet ñun duñu compter dañ ko jox yàgg na 2000 y'a 20 ans la ñuy créé rajo y'a 20 ans la ñuy yëngatu boobu Facebook amagul soo amee tamit live amagul 2003 bi ma nee cëpp New York c'était pour jàng informatique ak def ay télévision sur internet du ma seen morom. maa leen gën a xam ka da ngeen ma fan ba dof boole leen si cër bi ngeen si boole woon bu leen ko fi jëlee ndax ndee la maa bii kat kii si frot si pic de sama problème sama mbajum kanam maa koy fekkal sama boppa de sans cesse dama jeex bu may yëngatu foo leen newoon man nañu ma de te duma compter damay këpp ak xaalis participer si élection dégg nga wax ji ma duma compter. damay këpp xaalis participer si élection locale législative présidentielle waaw duma seen morom da ngeen koy nangu kon mënu leen soo leen fekkee da ngeen dof ba dara nekku seen bopp yi ba ñu leen di invité ba di leen di jaxase ak Ndella Madior yéen a seen bopp yéen a xam infiltration moo garaaw gis nga nit ki dina lay infiltré da nga koy bàyyi ba egsi dina foog a nekk ah kii xamul fekk xam bépp sénégalaise bu ma infiltré nga foog a nekk xaw ma ko jëli naa la bi nga bi nga noddee laa la jëli dama lay bàyyi si biir rek ma su ma si maaree rek nga xam ne maar naa si les di bàyyi ñu egg si su ma si maar xam ne maar que day amay indice day wax réconciliation avec Fatoumata Danso parce que moi j'ai pas suivi tous les lives de Fatoumata Danso bi ñu waxtaanee ndeysaan ma gis que du nit elle elle n'a pas de problème cette dame elle n'a pas de problème elle a fait ses shows il faut lui laisser faire ses shows il faut lui laisser faire ses shows c'est tout il y a la chargée de com qui veut participer mais xaaral ba ma daaneel duma seen morom ngeen nangu ko duma seen morom nanguwu leen ko duma seen morom bokkul cour des grands maa jiite trois centième parti du Sénégal yéen ñëpp dama leen di xelal daf leen lii ci politique seen xel sa newu si woon ngeen nangu ko bu ngeen ñàkk ko nag ma gisuma benn femme politique buy wax ak man te xelaluma la li nga war a def pour gën a fës politiquement ngeen ne ah c'est pas possible dama damay pousse nit mu tàkk su ko sama sago yéen ñëpp da ngeen di créer seen parti am gën a am doole. ak ki ñaan ak Ndella Madior ma maa ñàkk ki ñaan ak maa ñàkk ki ñaan François Hélène Gueye xelal naa la ne la créer parti nekkal candidat à la présidentielle xelal naa la ko nga nangu ko ñàkk nangu comme ni ma ko xelalee Fatoumata Danso ma ne créer sa parti parce que parce que il faut que les femmes créent des partis politiques comme ça di y aura la fédération des femmes chefs de parti ndax dañoo wéet. nous les femmes politiques dañoo wéet motuñu sa dix kon man su ma gisee des femmes ki s'activent su fekkee dara nekk na seen bopp danañ ne créer leen parti ñoom dañuy foog ne parti création parti dafa cher alors que moins de dix mille francs CFA la ñuy créer parti moins de dix mille francs CFA la ñuy créer man damay coacher góor di coacher jigéen pour mu autonome politiquement et financièrement ñàkk ki ñaan mooy Ndella Madior dangeen wax kon arrête François de dire man du Mandela Madior bii baale man du Mandela Madior boo xam ne day baale pour ñu bañ kaa saaga antan naa lu raw loolu man su ma yëng su ma yëngoo rek Sénégal yëngu wala xamagu leen loolu man su ma yëngoo Sénégal yëngu man si kan la antal kan moo ma antal Sénégal sama su ma neexee man a tekk seet guy te moom on comprend pas ak li moom yëngoo ak li ma def nee na nii nee na naa su may yëngu ñu xam ne <laughs> ma bu yëngu na arrête de dire man duma Ndella Madior duma sa morom Françoise sa mag laa arrête de dire duma Ndella Madior bii baale kon su ma soo nekkulee Ndella Madior la yow da nga faa Ndella Madior ba dof li da nga faa Ndella Madior ba dof bi lan moo fi xew ba farawutuloo Ndella Madior parce que dama wax ak dama wax ak Fatoumata Danso mais Fatoumata Danso c'est une sénégalaise su fekkee mënu leen jubóo je m'en fous c'est le cadet de la phrase yow ak Fatoumata Danso soo leen mënulee jubóo sama yónni wu si je m'en lenn laa mën a wax jubóo leen bëgg leen juboo sama yónni wu si en de mère ou de grand-mère laa leen mën a jox juboo leen may moo gën seen yëfu ñàkk fayda yi ngeen di def si antenne bi di xuloo xuloo baadoo la xam nga la ngeen wax xuloo baadoo la xuloo baadoo la ngeen di xuloo rusu leen si kenn rusu leen mag rusu leen kenn ci prix c'est ça qu'il faut arrêter ci prix laa leen di wax xaw kañ laa gëj wax ci prix parce que lii ngeen mérité parce que nag dañ leen war a wax dëgg dangeen ñu bëgg a ci Sénégal bii ak ci réseaux sociaux yi dangeen ñu bëgg a emmerder saa yoo taalee yegegegeg saaga vous nous vous avec vos insultes la merde vous nous emmerdez si c'est pour faire des lives pour insulter supprimez vos comptes nom de Dieu supprimez vos comptes doo leen wut nekk fi di saaga di saaga di saaga di saaga di saaga nit ki mun nga wax te doo saaga ndey est-ce que mos ngeen ma dégg ma saaga ndey man dee la maa jox xalaatuma ko si àddina dama ko xalaatum quand je dis je dépose les tay su ma nee ne bay déposer les armes su ma ko bëggee reprendre dama koy reprendre yow kenn newu si c'est pas parce que je dis je dépose les armes way way way way ndee la acca on va compte comme ay bébé xale yi sax ñu ngeen di xeexee xeexeetuñu noonu xale yi sax xeexeetuñu noonu yenn ñàkk jom yu may gis nii di nekk fi di xuloo di kaloo di xuloo mais mais tu n'importe quoi il faut savoir arrêter et oh, là je siffle à la fin de la récréation dama leen di wax dëgg vous nous emmerdez ak vos insultes c'est quoi ça